ci sa dernière sortie bi nga def euh, euh, di wax ne Ousmane Sonko du xam nga xam nga tey euh, Serigne Babacar ñiy woote woo sëriñ dañoo yàq xam-xam gis nga xalifa bi nga gën a fonk ci réew mi bu génnoon ne Sonko du nekk président nit ñi saaga ko xas ko. mais day mel ni xasi yahud yahud bi bu ñu ko tëree war koo rey ñu ne loo looy wax tey mu ne loo am yàllaa ko dogal xam nga dëgg la mais c'est pas vrai ci moom tey bu fekkoon ne nit ñi génnuñ Real mooy gagné Balla Gaye daan mais képp ko wax ñu gàdd la responsabilité yi konoon balaa waaye di wax xalaat ko de mais même boo waxee dëgg léegi ci Sénégal ci ëllëg ci amul xorom parce que yàqu na ba pare waaye yàqu na rek mooy li wàll yu ba waxoon ñaaw na rek suñ diggante ak borom buñ demee ba yowmal xiyaam yàlla jéggal ñu tam ñaaw na rek léegi dangay gis ne tey man xam-xam bu leer naññ naññ naññ naññ laa ko teg ne Ousmane Sonko moom du falu ci réew mi bul fàtte ne man kilifa yu bëri te li may wax àdduna xam nen ko taxaw neen ne sëriñ bu du gañe man ma ne dina gañe ma ànd ak moom mais dafa tombe woon ak dogali yàlla ndax ña waxoon ne moon njaay ma day gañe ñoo ma gën ndey ñoo ma gën baay ñoo ma gën jikko ñoo ma gën a jege yàlla waaye dafa fekkoon yàlla àndut ñoom lii moom leer na dafa fekkoon yàlla ànd ak man yàlla moom mu ànd ak man ci ne Sonko du falu <laughs> te xam naa bu baax li may wax te li passé musuma ànd ak ku dul falu man ba ma wàccee ci làng gi rek la sonk am problème te ma wax la benn révélation léegi tey nga commencé nit ñi gis léegi tey nga commencé gis nit ñi di génn Pastef léegi tey yeewu askan wi ak wallu tas du yàgg sax parce que nit ki du moom waaye la muy àndal wala la muy gëm ba ne ca day fekk mu tombeek dogalu yàlla xam nga xam yàlla ak nangu dogal yàlla du benn léegi-léegi nga gis xaarif bu caalit e man fu ma jëm ci yàlla nga jëm comprendre mais léegi-léeg nga gis xaarif bu am dal boo xam ne lu yàlla dogal moom neex na ko Ousmane Sonko dama gëmut te ñeme naa ko waat ñeme naa cee teg suma bakkan ne du falu ci réew mi amoon na saasu nguur waaye folli neen ko ci moom xam nga dafa am ñaari aluwa lahul mahwi ak lahul mahfuus Ousmane Sonko den koo far ci nguur du ko doon mais na kum mu bëgg yàqal nguur yàqal la ko day mel ni Moustapha Niass rek <laughs> Moustapha Niass du falu waaye comme mu bëgg yàqal yàqal la donc Ousmane Sonko am na pouvoir yu yàqu nguur mais dogal yàlla dawut ci moom mu falu lii may wax nag amul xorom ndax ñii woote sëriñ yàq neen ko te man nag dama bëggut man génn naa ci man dama bokkul sax ci yëfi sëriñ man moom da je suis toujours insisté que bokkuma ci suma bàyyi laa gëm ku ne gëmal sa bàyyi suma kër bàyyi laa yem dew ma kër bàyyi kenn lii xam nga méttiwul néew ma bàyyi kenn dafa bon déedéet maa suur bàyyi jàmbur jàpp suma baay ndax dama nekk ci problème bàyyi yëpp daw ma bàyyi yëpp bàyyi ma su ma bàyyi bi ma jur rek laa deseel bu ma nekkaatee ci jàmbur dafay jaadu nag ma dellu ci moom jox ko ci rek njukkal sondal naa bàyyi jàmbur yu ne bay naa joxe naa addiya sukk naa raam naa lu ne defal naa ko bàyyi jàmbur mais bi ma nekkee ci xat bàyyi jàmbur yi den ma ba bàyyee ma suma baay man nag ma jàpp suma baay lu ne dafa am reson ku tollul fi ma toll doo xam li may wax mais ku sa gaddagg ni su ma gaddagee nga xam li may wax waaw baati wolof la donc kon fii laa taxaw ne Ousmane sonk moom réew mii du fi falu kook moom su suis toujours insisté ci loolu te te tegtal yi mooy léegi tey nit ñi commencé di démissionner Pastef xam nga man aw ma droit aw ma doole aw ma sañ dem ci benn waa Pastef na la bàyyil <laughs> kooku moom du alal du xam-xam aw ma ko. mais li ma la wax danga nga koy gis te du yàgg léegi tey ñu commencé di rocceeku ndax la ko téye woon dafa tas la fa dugg pour tas ko dafa rëy xam nga doo doo du du ma mun a wax mauvaise nouvelle que léegi tey nangam nangam ndax yenn néeg la borom moo cay fanaan foofu dama fay gàttañlu mais lii ma la wax moom di nga ko commencé di gis léegi tey yeewi askan wi wàllu nga commencé faa gis problème ci 2022 bi balaa 2023 nga gis ko coalition bi léegi tey nit ñi commencé di joxe ay révolution yu doy waar donc loolu lu am la parce que bul fàtte ne yàlla bu dogalee kenn dootu ko so changé mais am na ñuy xam dogalam te fekk wàccagut ci àdduna ndax àdduna bi benn la ci àdduna yi du bii rek yéen ñi jàng tubaab xam ngeen Jupiter xam ngeen Mars xam ngeen nangam nangam du àdduna bii rek dogal baa wàcc mais ñëwagut fii ñu war koo gis waaw léegi nag yenn saay màndikat ba fakastalu xam lu ñëwagut yàlla mbiram fu ko neex la koy denc man woote wu ma sëriñ bëgguma doon sëriñ te doonuma ko ndax sëriñ qualité la aw ma qualité yi man damaa bot mais nag nit yàlla la yàlla mooma moom loolu moom ku nen war nag mën na koo nangul te wa alamal insaana maa lam yàlla man loolu laay woote mais du maqaam ak rëy rëylu sperme mooy wax nii di mujjee niw ëllëg mujjee suuf xam naa ko fi ma ne mais nag alalu yàlla la moom moom mooy dogal ci man daal yàlla dogal na ci xam-xamam bu mat bi mu xamal ma ne Sonko du falu te du xaar du seet du dara ay listixaar yooyu moom sa xam nga mën na nekk mën na ñàkk nekk list xaar moom jaamu yàlla la rek yàlla lay neex mu nangu seeti petaaw dafa xaraam ay ramloog yooyu mën na la fenal teguma ko foofu yooyu dafa suufee mais lii ma wax teg tegtali balaañ ca yegg léegi tey nit ñu commencé di génn Pastef léegi tey Yewwi Askan Wi commencé am problème yoo xam ne day rëy ci askan wi xam nga tëgg kasoro la mi Sonko lu gën a tey suma xel xam nga man moom bëgguma Ousmane Sonko politiquement lii dama bëgg mu leer man du may làqatu ànduma maak moom doyuma politiquement mais Ousmane Sonko en tant que personne xamaluma ko dara te nit koo xamul dangay ngay màndu ci moom man dama màndu ci moom personnel mais gëm naa ne jabar yu set la am gëm naa ne jabar yu baax la am loolu laa gëm xamaluma leen dara mais kubéeri sujeer yam téye woon no fooguma ne jabar yu Ousmane Sonko yi tilimee ne noonu ba duñ ko raxas donc fu kubéeri cin yi jugee sénégalais dañ ko war a xam bi mu ko tëggee garde corps bi la ko jox fu mu jëm dafa am sama benn xarit bu sant loo mu woo ma mu ne ma Sonko tëggul ma ne ko bu tëggul du fanaan bu dee li ma xam man bu tëggul du fanaan mu ne ma tëggul ma ne ko wallaay dina tëgg ma toog tuuti rek xam nga léegi Sénégal fen bi gën a gaaw mooy stati <laughs> man su ma bëggee am information rek stati laay dem ma dem stati rek yónnee ko ma ne ko naa la dina fëgg mais kubéeri cin yi dafa nuroog cin yuy nekk ci njaq du lu set luñ mën a lekkee quand mais fan la jógee ba pare daf ko tëgg ñaar ñetti yoon raatare ko jox ko garde bi fan la jëm lan la ci namm damay laajte rek parce que xaw ma xam nga boo xamul da ngay bul jugé mais kubéeri cin yooyu gëw ma ne këram la jógee ndax jabaram yi ñoo tilim ba salte noonu ba bàyyi fu président Ousmane Sonko mu sell mi war a lekkee muy tilime noonu man gaw ma ko franchement xaw ma jabaram mais dama leen di seedeel set ndax loo xamul wax ci lu rafet mais fan la jógee question la bu ma xamul bi mu ko tëggee jox ko garde corps fu mu ko jëmee question la bu ma xamul yii buñ ko xamee rek dinañ mën a xam sacrifice la wala du sacrifice donc <clears throat> ñaari solution laa am mais damay bañ wax ko mu mel ni gisaane kat ak yooyu dëggal pofton mu toj mu toj di nga ci mucc dem rek yëkkati pofton sa tànki càmmooy ne lii Ousmane Sonko def bu dee sacrifice la yàlla naa ci mucc mag suma njaboot nga dóor mën ngaa mucc nga noddal ko nodd ni ñuy noddee neew yàlla yàlla nag ma yëkkati ni nodd yëkkati ko aar ma ni muy ooyee nit ñi ci jullit xam nga salaax mooy mbégte mooy julli salaatu mooy julli salaam mooy mbégte ak yéwén yàlla naa amee mbégte loolu di ci mucc gàllaaj gu ñuul da ngay dëgg poftan sa càmmooy ci wàllu lislaam bu dee gëmoo yooyu yëpp nga nodd ñaan yàlla mu musal la dinga mucc ci lii bu dee sacrifice la te man dama gëm ne sacrifice la mais nag waxuma ko waxuma ne sacrifice parce que leeruma nit da ngay lu la leer su ma gëm-gëm laa wax ak interprétation teg ko ci li ma xam